lol nak xam nañu gu nu mu tàngee fan lañ ko soxla te groupement boobu ah ñu ngi leen di jàppale mais lu ma leen di wax rek xam nga financement du financement politique du financement bu nga xam ni partisan la waaye financement bu nga xam ne ni da koy fay donc ñu góorgóorlu taxaw si pour ñu mën a rembourser boobaa xam naa ni yeneen groupement dinañu bénéficier ay yeneen investissement vraiment maa ngi rafetlu bu baax a baax si seen taxawaay rafetlu tamit vraiment à DER bu nga xam vraiment mu ngi ñuy si biir Kédougou mais si biir région bi mais si Sénégal complètement